gouvernement du Sénégal génne woon na budget bi nga xam ne moom la jàppoon ne moo war a tabax université bi mais dafa amoon ay gàllankoor yu bëri léegi ñu wax ak entreprise bu bees bi ñu ne ñoom li problème bi ñu amoon ci ñeenti at yooyu ñoom dinañu jëlaat chantier bi defaraat ko tabax ko livrer ko ci juróom benn weer ñu ngi ci dele yooyu ba léegi fii ak ñetti weer jàpp nañ ne université bi chantier bi dina pare victime nañu rectorat bi nga xam ne ku ko gis gis na doxalin bi ci bees bërëbu liggéeyukaay la mais bërëb bërëb la bu nga xam ne jàngalekat yi ak ñi fiy liggéey ci université bi mën nañ fa dund tamit am na restaurant am na cafétéria am na ay bërëbu noppalukaay ay bërëbu jàng tey ñu ngi fii ci cité universitaire bi gis nañ ne cité universitaire bi cité universitaire bu 6000 places la dañ ko tabaxoon pour étudiants yi mais ak accueillir ba pa bu ñu atterri accueillir woon Jeux olympiques yi Jeux olympiques de la jeunesse yi renvoyé nañ ko ba 2026 mais gouvernement bi jàpp na étudiants yi mun nañu commencer occuper bâtiment yi ci respect mais di wax ne gis nañu modèle ak président de la république modèle université bu ñuy tabax te loolu Sénégal am na yokk na ci ay capacité te dinañ ci jàng pour tax gën a defar sunu système universitaire bi nga xam ne président li mu ci investir ëpp na li nga xam ne moom lañ ci investir ci réew yi ñu wër yëpp